يا الله يا من لا إله خيره يا من يجيء دواما خيره يا الله يا من لا إله خيره يا من يجيء دواما خيره صل وسلم سرمدا يا رحمن على الذي مجيب الأزمان سيدنا محمد والآل ولستجب بجاهه سؤالي أنت الرحيم ملك الخدوس لك علي الشكر والتقديس أنت السلام مؤمن مهيمن أدعو بها وإنني أهيمن أنت العزيز رب والجبار لك علي الحمد والكبار يا متكبرا له تكبره حكم يا حل اللطيف الكبير لك علي الشكر والتكبير حفيظ يا مقيت يا عزيز جليل يا كريم يا رقيب مجيب يا ngeen jëf mbokk yi taamu di topp seen site internet murit point info man Ndeye Thiam Saliou tey nag maa ngi ànd ak ñi nga xamante ni si ñooy waa kër Moustapha si selo honorable député ñu ñëw fii nga xamante ni si xelkom di fi indi ay benn yoo nga xamante ni si ak ay teraanga yi nga xamante si moom lay waajale bisub sëriñam bu màgg boobu di bisub sëriñ Saliou bi muy waajal ci si ses incha allah rabbi murit yaa musil yaa sami jaa ngeen jëf mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon sànq rek maa ngi taxaw ak ki nga xamante ni si moo di Lamine Lo ñu fasiyene ko bàyyi ma présentage. waaw man na Lamine Lo ñëw fi ci xel kom ci ndigalu président Moussa Cissé Lo ànd ak suñu baay suñu kilifa baay Abbas ak Pam Mbaye ak Galas Diouf ñëw fii ngir andi ay adde yu mu andil Serigne Saliou jërëjëf sëñ Lamine leeral yooyu ñu ngi lay remercier ci présentation bi ñu bëggoon a xam tey seen teewaay fii ci biir Xelcom lan la lu ko waral. waaw suñu teewaay fii bisub sant rek la ndax addiya yi ñu andi fii ci fii ci Xelcom ci ndigal Serigne Sall ko suñu kilifa amee woon muy président Moustapha Cissé Lo moo waral suñu teewaay fii andi na nag addiya joo xam ne eh, ju ju ju bëgg nañ ju ëpp loolu mais Serigne Touba lu ko waaye defar rek moom mu ful ko. andi na fi juróom ñaari nag ak benn gileem ak une tonne ceeb ak un million loolu moom la indi fii ngir bis bi la 5 la si ses mais dañoo ñëw jiitu ci fii ngir andee di ndax fii la lépp dooree woon ndax ko indi moo ñu digal suñu kilifa par exemple Fass Lo te mu amul lu Serigne Saliou Serigne Saliou rek la am ndax li mu am lépp ak li mu man Serigne Saliou moo ko ko defal te mu nekkoon doom Serigne Saliou Serigne Saliou defoon ko doom defoon ko xarit defoon ko taalibe moom tamit mu jàppoon loolu defoon Serigne Saliou mu noon léppam loolu moo tax ñu teew fii Xelcom. jërëjëf jërëjëf sëñ Lamine leeral yooyu am na solo torop mu mel ni kon honorable bi indi na fi juróom-ñaari nag ak gileem ak un million ñaata édition ngeen dala ko def nii. ah su ma yàgg cant gi yàgg na ndax par exemple Sassou koo xamoon yàgg na sant Serigne Saliou waaye mën naa cee wax at at yi wax ne man jàpp naa ko muy yaakaar naa 2007 ba léegi maa ngi gis chaque année mi ngi sant Serigne Saliou fii ci tuubaa ñaari at yi rek la ko yóbbu ndax. sant mo demé nonu sun borom mako ko wax alxuraan fi si kon mu laa si dëndakum ku sant ñu doli la te doli kooku mom yegg nañ ko ñun ñu yegg nañ ko yegg nako na Serigne sall ku xol ligéel wala nga sant ko mu defal la lu upp fa nga tolon lol mo waral ren ji la ñu koy defee Dakar ci ses loolu mooy cant gi rek. yoy leral amna na solo ndax man nañ xam programme ci ses bi naka lay démé waaw programme ci ses bi mënuñ ci wax lu bari ndax taxawlu gut commission d'organisation loolu mi ngi suñu karam yaakaar naa la 28 la ajjuma Dakar bu ñu defee réunion pare dañu mën a xam programme bi nan la waaye berne la ak euh, jàng xasida jàng alxuraan ak delloo fa njukkal Serigne Saliou loolu rek mooy cant. te noonu la ko suñu kilifa def président Moustapha Cissé Lo jërëjëf sëñ am sëñ Abba Touré ginnaaw bi ñu la nuyoo ñu ngi lay ziare bu baax a baax a baax ñu lay ñaan nga présenté waaw léegi bi ma présenté woo ba noppi ci li ma wax moy li ma xam ci Moustapha Cissé ab talibé la as gor la ab julit la buñu bari manon ni ci réew mi Sénégal dina neex lol ndax talibé bu deugal la té limuy jëf ci yoon wi man xamna ko ndax 78 ak ko and ak nit xam nga ci mom lu bari té lima ma gis mu di fa jëf new ma morom amul de way gisumako man ci lima ma gis la wax waaw té def koy def ngir yalla ak bi touba rek ko def mi ngi dimbali ni doole yi mi ngi dimbali koo xam ni ki am nga doole ku mu doole xamul lépp ñëpp lay dimbali day dimbalee ngir yàlla rek te yàlla tax. jërëjëf sëñ Abass Touré ginnaaw bi nga présenté woo ba pare ndax mën nga ñu dikkal ci diggante Moustapha Cissé Lo ak Serigne Saliou seen diggante naka la demee woon. diggante Moustapha Lo ak Serigne Saliou li ma ci xam bu ma koy wax ci jamono Sëñ Abdou lay tàmbalee moom leer na ma ne am na ngërëmal Sëñ Abdou Lahad am na ngërëmal soxna May moom am na ngërëm it Sëñ mooy taalibe bu dëggal boo xam ne day jëf ci yoon wi lu wér te li muy def yàlla rek tax ak sëñ boo tax na sëñ Saliou toog na ba muy def cant gii ne ko damaa bëgg di sant ne ñëpp am na ñu fa nekkoon jërut jaar ci turu kenn bi mu ko waxee dafa am ku rikki ko ne ah mu ne ko damaa bëgg sëriñ bi cant gi ma raw cant ak kon yëpp ma raw leen am ku ko rikki ni sëñ Saliou ne ko déedéet mu bàyyi ko mu yaatal ko jërut jaar ci turu kenn di ko wax ne bu ne gees moom sëñ Saliou ci tedd nga am ji ak nga ak baaxam nga ne ko bàyyi ko mu yaatal ko mu ne ko dama bëgg cantaakoon yëpp ma raw leen loolee mu defoon nag def na ko tey ndax yaakaar naa bu doon course ma ne moom raw na fas yi ba noppi làbb leen la ba jiitu leen ndax ñi fi doon yëngu ñëpp bari na ñooñu lañ doon def teewaayub sëñ Saliou wa taxul ñu di ko def waaye taxut waaye lii ni moom nee na feeg muy dund ci kaw suuf di ko def lii lu waral mu di ko indil sëriñ Seex mooy wóor na ko ne li mu ko sëñ Saliou defal kenn defalu ko li mu am ci sëñ Saliou ak sëñ Blaat kenn mu ko fenn ba tax na lii muy def. du ko bàyyi ba ilaa yu mi diini lii da ko indi ngir sëriñ bi jox ko donga yi ñu xéewloo ko ndax xam nañu donga yi mun mënuñoo ñëw foofa te ay tuut tànk fi ne te lépp xam nañu laaju ci sëñ seex léegi moo tax li ci des nag seses la koy defee ji la cinq bu soobee yàlla ku fa ñëw di nga xam ne a ah, yàlla dimbali na ko ci nit ñi bari nañu ko bëgg lool ñëpp maasi la bëgg nag yàlla dogalul ñëpp man ko am waaye li ma wóor mooy Sénégal ba mën ay moromam yu mel ni moom kon réew waxatuñu ak ak neexam akuk dalam te it jàmbaar la góor la nangu naa liggéey nangu naa dimbalee nangu naa jaamu yàlla te man ànd na moom ak moom 78 ba léegi kon li may wax ci moom yàlla rekk tax te li may wax it ay malaayika ak may seere kon lu waaye di wax nag wax digg mag yàlla jot na fee indi juróom-ñaari nag ak une ceeb ak gëléem ak un million loolu it maa ko ŋàbb daaw def ko joto bi dem Daaru Xudus ca kër sëñ Seex jox ko sëriñ Seex mu boole maag jëwriñ ji ñu indi ko fii moom lañ defaat te ba mu ko dalee def ak léegi at mu ne da ko daan togg ay ndab di yóbbu léegi nag dafa ne daa bëgg di ko indil sëriñ bi mu di ko defal nu ko neex ci ay dongaam nu ko gënal ci ay dongaam mu di ko fi defalee li ci mu defal ko ca mbooloo ma fa muy ne jërëjëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñëpp jaa ngeen jëf mbokk yi gis ngeen leeral yi nga xamante ni si moom la waa kër Moustapha Cissé Lo indi woon tey ñoo ngi wàccoon fii nga xamante ni si moo di Xelkom Jaaga gis ngeen li nga xamante si benn yeeg teraanga yi nga xam ne Moustapha Cissé Lo moom fii tey ci biir Xelkom di bi nga xamante ni si mooy le 5 janvier fee ca Cissé ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon ba Cissé incha allah rabbi le 5